organisation Faire Education et Daré Sembène MPI, Maison de la pédagogie de l'image, avons porté plainte auprès du procureur de la République, la télévision Futur Média, TFM, pour l'arrêt définitif de l'émission Seine Petit pour trois motifs. Exposition aux dangers psychosociologiques, détournement d'objectifs, exploitation active et passive des enfants. Vous savez, euh, selon la pédagogie de l'image, l'adulte vit un rôle. toujours. Vous savez, selon la pédagogie de l'image, l'adulte joue un rôle alors que l'enfant vit un rôle qu'il prolonge dans la vie. Alors, Comment pensez-vous qu'on peut dire à un enfant, vous allez être une star le temps de vac des vacances Ce n'est pas possible. Ce qui se passe dans Seine Petit Galet, nous, nous avons fait une enquête auprès des enseignants. Quand ils viennent en classe, ils perturbent. Parce que euh, les, les, élèves, les enfants les considèrent comme des stars. Vous savez, le, le est fou. À plus forte raison, l'enfant fan, l'enfant est fou. à dire il pense que euh, celui ou celle qui sort, euh, qu'on voit à la télé, est, est, est extraordinaire. Donc l'enfant sort de l'ordinaire pour atterrir à l'extraordinaire. Ce qui fait que même les enseignants, les enseignants qui sont euh, euh, les, les, les, les, professeurs de ces élèves-là ont un problème recadrer après les vacances. Qu'est-ce qui se passe Le 25, le 25 décembre, on a les enfants ont déjà repris les bancs de l'école. Et qu'est-ce qui se passe On amène les enfants en Sine-Petit-Galais. Qu'est-ce qui s'est passé durant les, euh, après, à, à l'ouverture, après l'ouverture Les répétitions Nous le pensons. Alors, ce qui est grave est que nous avons suivi euh, euh, l'itinéraire La vie des enfants stars. Un enfant star et ce qui se passe a besoin d'un encadrement honnête et mature. Sinon, c'est ce qui se passe, c'est la, euh, la, la, déprime. Si l'enfant est privé, euh, ce qu'on appelle le manque d'intérêt médiatique. L'enfant digère mal le manque d'intérêt médiatique. Un jour, l'enfant est sous les projecteurs. Et je vous dis, être sous les projecteurs est dur pour un adulte, à plus forte raison un enfant. Le stress, le stress sadique, le stress sadique euh, qui est nourri dans ce petit galet. Vous avez entendu la musique du fond. L'enfant qui est sous le point de tomber en syncope, tout simplement parce qu'il reçoit des résultats de, de, de l'élimination. L'enfant peut avoir des problèmes psychologiques pour dire que j'ai été nul au point qu'on m'a éliminé au vu et au su de tout le monde. Je vous dis, ces genres d'émissions ont été dénoncées partout dans le monde. Et que moi qui suis pédagogue de l'image audiovisuelle, je sais que ce genre d'émission est très, est très dangereux pour un enfant. Je dis même qu'il est très lourd pour un enfant de porter ce qu'on appelle, ce que nous appelons, nous, à Daré 5 les Il est dur même pour l'enfant et même pour l'adulte de porter ce que nous appelons à Dar et les 7 P du, Star System. Les 7 P du Star System, c'est quoi C'est podium, people, projecteur, presse et... <laughs> ayet il faut me reprendre loolu. voilà mais bëgguma kii di ma waxal quoi donc <laughs> na na arrêté alors première fois Vous savez, euh, la vue du podium est très dure à porter pour un adulte à plus forte raison pour un enfant. Le stress, le stress, le stress, le suspense dure à dure à vivre. Et je vous dis, il est lourd pour un enfant de porter ce qu'on appelle euh, à Dar et Sembène les sept paix du star euh, système, qui est podium, paillette, projecteur, public, publication, presse, people. Comment Vous, vous, voyez comme, comme, comme c'est difficile pour ces enfants-là de recevoir les, les, les, résultats des éliminations. Cela nous rappelle quand nous, nous recevons les, les, les résultats du baccalauréat. Et là, c'est à raison, parce que nous étions des apprenants. Nous étions des apprenants, mais eux, c'est des, ils, font de ces enfants des, des chanteurs, des apprentis chanteurs. Et ils pensent que cela peut s'arrêter au bout des vacances. Non, parce que l'enfant vit un rôle alors que l'adulte joue un rôle. Il est difficile pour l'enfant de se départir de ce rôle dans sa vie. Et vous voyez euh, la vie désastreuse des, des, des, des, stars. Moi, je ne vais pas parler des stars euh, enfants sénég sénég sénégalais. Mais des stars enfants euh, améri américains. Mac longtemps, maman, j'ai l'avion. La vue euh, fort euh, difficile de Michael Jackson, chanteur enfant qui est devenu chanteur adulte. Arnold dans Cosby Show. Et la liste est longue pour un problème d'encadrement. Donc on ne se lève pas comme ça, on prend des enfants, on les met à la télé. Ils commandent des, des SMS. Vous pouvez appeler quoi cela C'est de l'exploitation active. Ils commandent des SMS. Et ces SMS-là, c'est des sous qui entrent dans les caisses de qui De la télévision Futur Média, de Prince Art ou du GFM. Et voilà, nous disons non. Parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants aussi. Oh, ah, Sten Pategalé est un groupe, mais derrière ce groupe-là, il a des millions d'enfants parce qu'il y a la pédagogie de l'image. Il a des millions et des millions d'enfants sénégalais. Ce n'est pas l'histoire d'un petit groupe à la télé. Non, non. Parce que ce que les enfants de Sten Pategalé vivent, cette fille est relayée au Sénégal via la télévision. C'est ce qu'on appelle la pédagogie de l'image aussi. asalaamaaleykum maa ngi tudd Modou Gueye euh, jàngalekat la professeur anglais ci lycée bu Kër Madiabel lu ñu fi indi moo ne dañoo wax ne émission bi nga xam ne nii moom lañuy tuddee seen piti galet di daw ci télévision Futur Média TFM boobaak léegi depuis 2011 waxoon nañ ci daaw ci waxtu wi bés bu ñu ciy wax ñu ngi ci àndoon ak la la fédération nationale des associations des parents d'élèves FENAPES dirigée par doyen Bakary Badiane avec sa délégation ñu ngi ci àndoon ak yenn ONG yu ci demee ni Save the Children ñu ngi ci àndoon ak le secrétaire général de la RADDHO monsieur Aboubacry Mbodj ci daje boobu dañ na woon seen petit galet buñ ko arrêté wul ñun danañ porter plainte Télé Futurs ndaxte lépp loo xam ne nii gisoon nañ ne baaxul dénoncé woon nañ ko daaw ci waxtu wi le 20 janvier dem nañu ba ci at ñu gis ne ñi nga xam ne ñooñu taxaw ñu doon wax dégluwuñu faalewuñu te ñun suñu wàllu liggéey ci wàllu njàngale mi nga xam ne ñu ngi nekk ci lañu nekk ànd ak xale yi saa su nekk dëkk ak parents d'élèves yi xam nañ émission boobu lu muy def ci xale yi ak ci société bi ci famille yi bu ñu demee ci at ba léegi ñu ne nag ginnaaw ñoom faalewuñu jéemuñu dara ci dindi li nga xam ne ne moom lañ doon wax kon ñun dañuy porter plant tey jii nag porté nañu plainte auprès du procureur de la république ngir ñetti mbir benn bi mooy ne dañ ne seen petit émission boobu tey TFM di dawal dara taxul ko jóg lu dul jëfandikoo xale yi ci mbiram xaalis jëfandikoo leen ci mbiram koom daanaka dañoo jaay ëllëgu xale yi jëndee ko koom loolu mooy benn mbir bi ñaari mbir bi mooy dañ ne émission boobu lu bon la ci nekkuwaayu xale bi ci wàllu xel ak ci wàllu société ba ni muy màggee ñetteel bi dañ ne émission seen Petit Gallé dafay yóbbu xale bi ci yeneen mbir yoo xam ne ni doonul mbiram jàng mooy ñetti mbir yi nga xam ne ni jàpp nañu ko moo tax ñu porte plainte bu ñu jëlee ci benn bu njëkk bi mooy exploitation des enfants l'exploitation financière précisément des enfants dañ ne émission boobu boo ko defee nga ne xale yi ñëw leen da ngeen di wéy di fecc ñu di leen voteel SMS bu nekk nga jaayee ko trois cent cinquante francs nga calculer cent mille votants loolu mu ngi lay jox trois trente cinq millions daanaka loo xam ne nii genn wàllu saison rek lay doon wala ñaar wala ñaar du mat sax genn wàllu saison bi ñu ne loolu du dem duñ ko seetaan beneen mbir bi mooy toujours ci wàllu xaalis boobu tey da ngay organiser seen petit nga ne xale yi da ngeen di paas bi ngeen di ñëw surtout final bi nga xam ne nii war nañ ko def ñoom xam nañ ne bu na xale bi da ngay paas dix mille francs xale bi dana am ku mu àndal dana ànd ak magam. wala baayam wala yaayam wala nijaayam ñooñu bu ñu ànd moom ñaar dana ànd ak lu mu tuuti tuuti kenn wala ñaar wala ñett kon yow xale boobu nga laaj dix mille francs ci famille bi yaa ngeen teg vingt mille trente mille ba sax cinquante mille des fois loolu jaaduwul toujours ci wàllu xaalis bi dañ ne waaw xaalis boobu nga xam ne ñoom ñu ngi koy jëlee di ko dundalee di ko jëlee ci xale yi di leen fecculoo di leen wayloo waaw lan moo tax delluwuñ ko ci seen njàng waaye ñoom lépp leen yitteel rek mooy ne nañ leen exploité ba am ci xaalis dajale ay sponsor yoo xam ne nii gis leen ma rek moo leen tax a jóg ñu dem ànd complot jël xale yi jaay seen avenir jëndee ko koom loolu duñ ko seetaan mbiram détournement d'objectif bi dañ ne xale yi jàng moo tax ñu jóg moo tax ñuy dugal leen ci école yi ñun nag daaw bañ ko waxee dañoo gis ne ñoom jéem nañoo defaraat émission bi sax di indi ay ustaas soo yaay xale yi buñ leen salaloo ba ñu jekk pour ñu dem fecc ju wéy ñi oo ab ustaas mu naan leen xaala laaw xaala rasul ñu gis na loolu ñoom gëmuñ ko te ustaas yooyu di def loolu ñu ngi leen di xamal ne ñu ngi leen di ñaan loolu nañ ko bàyyi buñ amee lenn lu leen di war a wax mooy xale yi nañ leen wax nañ émission bi baaxul buñ ci bokk donc xale bi jàng moo ko tax a jóg nañ ko dimbali mu jàng bu ñu ne suñu élèves yu gën a baax moom la ñuy jël yóbbu leen pour ñuy fecc di wéy waaye waaye àdduna bi fu mu toll nii réew yëpp ñu ngi rawante ci njàng loolu ñëpp xam nañ ko États-Unis li ñu rawee ci adduna bi mooy ñëw fexe nañu ba seen développement dañ koo teg ci njàng teg ko ci xam-xam jéem gëmloo seen citoyens yi ne bu ngeen bëggee gën ci àdduna bi da ngay ni gëm le système le concept street fighting mooy lan mooy ne jongante bi ci mbiram xel la ci mbiram xam-xam foofu lañ jaaree raw nii raw nit ñi beneen bi mooy ne bu fekkee ne effectivement yow da nga bëgg xale bi jàng voilà fekk ko école am nga dimbale ko mu jàng seen pëdigala xale yi muy jëfandikoo amul kenn koo xam ne nii njàngam dana mujj fu baax buñ ko toppat buñ ko toppatoowee moo tax ñu ngi artu ci wàll googu parents d'élèves yi nga xam ne ñoo bàyyi seen doom yi dafa dem ne leen loolu ngeen di def xamu leen ko ñu leen di ñaan ngeen set ko bu baax xale yi lu nekk mën nañ ko am si njàng te Sénégal toll na foo xam ne nii waruñu jëfandikoo xale yi ci wàll beneen wàll dul wàllu njàng soxla nañu ay scientifique amuñ ko dañ ko manqué soxla nañu ay jàngalekat nee nañ dañoo bëri waaye dañoo manqué soxla nañu ay docteur soxla nañ lu ne kon lu ñu bëgg mooy nañu dimbali xale yi ci loolu ñu fexe ñu jàng njàng mu njàng mu baax njàng mu jaar yoon léegi nag porté nañu plainte ñu ngi bàyyi mbir mi ci loxo procureur li ci am ñu xam ne loolu la bu ñu oyoo ci yoon ñu dem liñ ci góobee gar ko wasalaam. Euh, oui euh, c'est maître Fati avocat la cour. Fati Koba. donc j'étais convié à ce point de presse pour faire donc une lecture juridique de la situation relativement à l'émission Sen Petit Galet diffusée par la chaîne de télévision Futur Média et donc euh, de Oui, mais Par rapport donc le problème du droit que pose donc cette émission et que en phase avec euh, Madame Ndiaye. Mmh, mmh. Docteur Adja Maïna. Euh, de Daré Semben et Monsieur Gueye de l'organisation Fair Education, leur plainte, la plainte qui a été déposée dans le bureau du procureur est tout à fait légitime. En ce sens que cette émission, les conséquences juridiques, les conséquences qu'on peut tirer de cette émission en droit donc, peuvent être analysées comme une corruption de mineurs. Donc délit extrêmement grave et sévèrement puni par les dispositions du Code pénal. Mais s'y également que donc ces deux organisations, à savoir Dar es Semben et l'organisation faire Education, ont aussi donc d'autres moyens coercitifs et à conséquences plus immédiates, qui pourront donc euh, obtenir par la saisine du juge des référés, qui a le pouvoir d'arrêter immédiatement cette émission qui est en train, qui est en train donc euh, euh d'entraîner donc des conséquences dommageables sur la conscience et la, la psychologie des enfants, comme donc l'ont si bien donc relevé mes prédécesseurs. Donc il va sans dire que les autorités qui ont été interpellées par les deux, les deux premiers intervenants donc, doivent tous œuvrer pour une œuvre donc de justice afin que cette émission-là cesse dans les plus brefs délais. Donc en droit, c'est une donc, je veux dire donc en droit, on peut parfaitement demander au procureur de poursuivre les auteurs donc, de, de cette émission. On peut même poursuivre les parents qui laissent donc leurs enfants monter sur scène en les exposant donc à des dangers, que nous venons donc de Et mieux encore, l'État doit donc aider ses ONG et ses parents en tout cas donc la population, toute la, aider donc la société à faire cesser donc cette émission qui est en train donc de créer des troubles manifestement illicites que le juge des référés à le pouvoir et la compétence donc d'arrêter suite donc à, à, la saisine donc suite à sa saisine donc par les personnes qui ont un, un, un intérêt légitime qui ont également une capacité à, à agir et nous pensons aujourd'hui que ces personnes qui sont là. Ces ONG et ces associations qui sont là sont parfaitement fondées à saisir ces autorités judiciaires pour faire cesser donc, ce trouble manifestement illicite que donc, est en train donc, de causer la télévision future Donc c'est la raison pour laquelle nous associons en tant que juristes nous sommes, je suis prêt donc à assumer et à accompagner ces ONG pour donc bon association non point de presse bi nga xamante ne waa Daara Sembène ak euh, organisation organisation Fair Education moo ko tenir fii pour waxtaan ak askan bi ci émission bi nga xamante ne day faral di daw ci benn télévision bi ñuy wax Futur Média télévision Futur Média ba tax na sax organisation boobu maanaam daaray Sembène ak euh, organisation Fair Education ñoo booloo saisir procureur de la République déposer jëbbal ko benn plainte procureur bi dina saytu plainte bi en tant que juriste nag ñu invité ma pour que ma joxe sama xalaat ci loolu njàng jàngat bi ma ci am mooy moo di juridiquement c'est tout à fait normal parce que en tant que membre de la société képp ku gis jëf boo xamante ne mën na yàq suñuy xale donc ñëpp ñoo ci war a jóg taxaw xeex ko te premier moyen comme dañu ne premier moyen de lutte Euh, ci képp koo xamante ne dañ laa tooñ maanaam da ngay saisir ki nga xamante ne moom mooy ñoom ñooy autorité judiciaire mooy procureur de la république moom procureur bu liiree plainte bi nga xamante ne moom lañ ko jëbal dina xam ni ndax émission boobu jéggi na yoon ndax amul infraction boo xamante ne moom moo euh, moom moo moo moom la ëmb comme lu mel ni le délit de corruption de mineurs ou même le délit d'incitation de mineur à la débauche parce que loolu yëpp procureur ci jàngatam bu ko liiree xëy na amaanaan loolu yëpp mën na ko gis mais mieux mbir mi nekk na loo xamante ne mi ngi gën a di yàq suñu société bi ba tax na ci sama xalaat solution bu gën a gaaw bi nga xamante ne euh, solution bu gën a gaaw que plainte sax procédure de référé la parce que procédure urgente la boo xamante ne war nañ ko jëbal juge des référés moom dina dina xam ni effectivement lii dafa nekk loo xamante ne warul dafa war a dagg su boobaa dina yoon may na ko ci su fekkee maanaam xalaat bi ñu am ci émission boobu émission petit seen petit gàlle même jàngat la euh, la ci am comme ñun su booba moom am na pouvoir ndax yoon moo ko may mu arrêté ne émission bi na dagg tey donc ñun en tant que acteur de la société en tant que juriste point yooyu donc laa mën a jàppale association ñaari association yi nga xamante ne dañoo jóg pour jàppale askan bi pour xeex li nga xamante ne mooy émission Sen Petit parce que gis nañ ci exploitation donc des mineurs mi ngi ci mais également responsabilité parent yi nga xamante ne dañuy bàyyi seen doom yi di ko seetaan wala di ci dem di participer di compétir ñooñu sax am na loo xamante ne yoon mën na mën na dal seen kaw que soit donc sur le plan pénal ou sur le plan civil en tout état de cause mën nañ engager seen responsabilité te loolu yëpp nekk na loo xamante ne euh, mën nañ ko euh, on n'exclut pas donc ces possibilités d'engager même des poursuites contre ses parents Donc voilà les observations que